asalaamaaleykum mbokki internetu Leewtoo comme ni ñu ko tàmm di defee chaque jour ñuy seeti champion yi di waxtaan ak ñoom tey ñu dajal ñu dalal benn champion boo xam ne nii bi mu duggoo ci làmb yàggul mais ñi ñi ñi ñi ténor yi yi nekk ci làmb ji kenn du ko kenn dootu ko ci génne. def na 16 combats 13 victoires de défaites Lac 2 moo ko daan ak euh, Zos Amaneex mu daan. Sa Thiès Guy gi Garga Mbossé Baye Mandione Dolf Double Less 2 entre autres tey ñuy dalal Boy ñaa ñu ngi leen waaw maa lay ziar bu baax di nuyu internet Leewtoo yëpp di nuyu Sénégal ak monde entier bi ñuy seetal à travers Leewtoo TV di déggee ñëpp di ziar ñëpp waaw. ñu nar a waxtaanee ci CNG bi waxtaanee actualité. waxtaanee sa comb sa combat diggante tafaatin ak afi grande affiche yi jot jot a taxaw sama première question mooy euh, est-ce que nekk doomu mbër atula la wala euh, euh, handicap. waaw nekk doomu mbër atu la handicap la. handicap la atu benn côté mooy le fait que ci làmb nga juddu ci mba doomu mbër nga ah, nga mbër sa sa waa kër xam nañu làmb dañ koy dund mais beneen côté bi mooy pour nga pour nga yegg ci làmb day jafe. parce que ñu ci bari dañuy jàpp ne yow dañ la jàppale dañ la wutal ay yoon ba pare koy bëreet bu defoon def fukk du dee doomu mbër day def cent donc waaw donc say sa yoon du yomb yow yaay nekk ña ñafekat rek liggéey bu baax na xam ne doomu mbër baax na mais nga mën métier bi tamit baax na nga mën ko am ay qualité dafa baax parce que nga nekk doomu mbër te mënoo métier bi parce que am na ay suñu papa yoo xam ne ay mbër dañu am na ay doom yoo xam ni waaw seen làmb neex na métti na. donc nag pour nga dem ci doom doomu mbër nekkul rek moom rek mooy doy pour nga dem pour nga dem il faut nga liggéey nga gëm métier bi nga fonk ko li mbër di wala def nga def ko lu mbër di wala def nga toog jàpp sa ñàmbur ci loolu moom ngay ne wax. nekk doomu mbër moo tax làmb neex la wala làmb daf la neex sànq boo nekkul woon doomu mbër mër tamit. waaw làmb dama ciy judd rek xam nga loo judd rek màgg ci dama la ngay xam moom ngay xàmme man dama nekk ndaw sama papa yor écurie Pikine mbooloo danoon fa ñoom Boosé ñoom Cek ñoom Malal. ñooñu noonu seen papa sama papa di leen entraîné nekk seen entraîneur école Pikine mbooloo ak ñoom Pape Diop Basson sama papa yooyu ma nekkoon xale su ma wàccee école sama papa daf may yóbbu foofu su ma yóbbu foofu nag damay ànd ak ñoom di daw nekk lu ndaw seen biir par exemple ñu yëkkati mu doo ci suuf yooyu léegi nag ci loolu laa màggee moo demee ba commencé dëgër nag commencé nag di bëre ñoom dem bay for jëli ci ñoom ma xam ne nag moo mooy loolu làmb nag dugg na ma affaire yooyu ngi doon def boxe nag après nag ba commencé ki tax di ci def ay compétition léegi sama papa benn jour mu ne sama course boxe bi maa ngi koy nuyu Antoine Marie dafa gaañu yàlla na ko yàlla xale ajal sama papa ko non kii bu ko yóbbu côté boxe carrément parce que doo mbër day bëre dama ko yóbboon pour mu jaar fii rek affaire yooyu quoi. Euh, naa compétition stade fii boxe naa fi am naa médaille ak sama photo mi fii sax waaw. doon nga ci am. ci ring non non def compétition boobu ñun école de la école de boxe mooy ñi nga xam ne ay xale lañu. waaw sama course père xam nag dara école de boxe mooy ñi nga xam ne xale nañu douze ans dix ans onze ans ñooñu ñoo ci mais ñooñu du combat ñuy def bu garaa yi mag yi amee ñun école de boxe yi ñun ñooy boxe ba pare après mag ñuy soog a boxe def naa ci lu bari boxe naa ci stade Demba Diop boxe naa ci Kër Massar boxe naa ci fu ne école de ñu nekkoon rek dañ doon dem foofu yi da ngay gën a privilégié technique bi que boxe. waaw noonu la su ma xeexoon tamit dañ naan da ngaa privilégié xeex bi que bëre bi. noonu la rek da ngay fexee jaxase ñaar yëpp parce que làmb tamit du box de waaw box moom daw doo ma jël sama tànk du ma def daal dañuy taxaw dóorante rek waaw mais làmb nag boo fi ne topp xew gars yi jeex nga si bi de boole ñaar yëpp rek waaw. léegi ñu dugg CNG gis nañ ne Alioune Sarr moo fi nekkoon def fi vingt 26 ans maintenant dem na est-ce que yow bokkoon nga ci bokk nga ci ñu ñu bëggoon Alioune Sarr waaw man Alioune Sarr avant tout dama koy féliciter ba mu génnee posé naa compte Instagram sama compte Facebook lépp remercier ko ci temps bu mu perdre ci làmb bu dee sax benn jour la perdre ci làmb parce que nit noon ngay mel quoi parce que sonn na ci ñun tamit wala defal na làmb sonn na ci làmb investir na ci làmb temps def na ko ci làmb ku mel noonu bu jugee ci làmb ñun làmb dañ ko war a delloo njukkal loolu mooy rafet day tax keneen ku ñëwee gars yi mën la bàyyi xel xam ne boo fi jugee kat mbër yi nan la delloo njukkal dina rafet mais buñ ko xale rek keneen ku ñëw tamit day ragal quoi. ñu ngi koy remercier di ko gërëm bu baax a baax posté naa ko remercier ko envoyé naa ko message remercier ko kontaan ci moom waaye nekku woon dama fi nekk pour mu jóge fi na ma fi nekkoon pour làmb avancé rek ku ñëw pour mën a avancé làmb rek day avancé moom mi ngi fi woon dox na ay jéego gars yi gis na ne keneen war na ñëw pour doxal yeneen jéego muy Bira ñëw na ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko dalal jàmm di ñaan initiative yi mu am pour làmb pour mu avancé suñu ñëpp ñu gunge ko parce ne te gars yi gungewul la tamit comme wax léegi rek dool dem quoi il faut gars yëpp gunge la dooleel la boo doon def bilan Alioune Sarr pour yow dafa négatif wala dafa positif. positif vraiment positif waaw ah, parce que ñoom boo xoolee sama ñoom papa ak yooyu temps yi bëree ba pare di ñu jox leen bon bon bi ñu la jox na ci ngay xaar après pour dem après ñu fay la te bon bi mu ngi ko topp ay weer mais ñun bu ñuy bëree suñu suñu rédicat mi ngi CNG 24 heures avant combat bi Tapha ah, suñu rédicat mi ngi CNG te loolu rafet la te Alioune Sarr moo ko fi indi gis nañu ñu bëri ñoo ko tegal suñu suñu bët. waaw loolu dafa de moom dëgg-dëgg bilan positif Alioune Sarr li mu fi def Bira Sène bu defee lu ko raw lamb dina avancé carrément. Bira Alioune Sarr dem Bira Sène ñëw est ce que xam nga Bira Sène avant mu ñëw coow li xawoon na bëri kii mooy toog kii mooy toog yow est ce que xaaroon nga Bira Sène nekk euh, ñu fal ko seen si CNG. non loolu kay kenn xalaatu ko woon Bira gars yi ñun suñu génération bi ñu ko xam bëriwul mais nitu làmb la bu yàgg ci làmb bu maîtrise de làmb keroog dama ko gis mu commencé dem seeti télé yi nekk sur le terrain. mane ne gars yi nag dëgg la xamal nit ma boo ko xamul xamoo ko mais ma ne gars yi am nañ président bu bu disponible nag bu dox nag mi ngi dox mi ngi dem ci gars yi mi ngi dem seet tere yi mi ngi argumenté déglu naa ko ma xam ne argument am ni du toog la du dëgër waaw nit na gars yi yu miit Alioune nag mais mun na fee liggéey sax du raw loolu parce que mi ngi ci yoon bi quoi waaw. commencé woote dialogue ba pare bu beesee licence yi promoteur bu beesee est-ce que loolu approuvé nga ko ah loolu affaire lu naaj la waaw wàññi licence yi parce que gars yi dañoo impacté loolu dëgg la waaw mais lu ko dese rek mooy làmb ji ubbeeku gars yi bëri boobu rek moo ko def te xam naa ne mi ci mi bind protocole sanitaire boo xam da koy envoyé ministre de ministre des sports ko ci ministre de l' xool ko mën na ubbi gars yi gars yi respecté yi ñu jéem a bëri quoi incha allah. ñu ñëw ci actualité tey organisé woon nga benn conférence d'abord lan moo la waral nga convoqué presse bi pour wax ak ñoom lan moo la waral nga def loolu. Hmm, situation actuelle lu làmb ji rek moo ko waral parce que am loo xam ne bu fa rek dafay nekk loo xamante ni ça sera collectif ñu ñëpp ñoo ko bokk quoi moo tax moo waxtaan ak sama yi waxtaan ak ñoom ñoo ñëpp ku ne ma woo la téléphone les lutteurs VIP ak ñeneen ñu nekk si ginnaaw suñu rakk yëpp ñoom ñëpp rafetlu ko moo gis nga ñoom ñëpp ñëw nañu tey ñi ñëwul tamit xam naa seen tànk diis waaye ñëpp ñëw nañu foo ma seen teew boo ñaa teew. yaa dégg Papa Sow teew fa Siteu teew fa daanaka ñëpp teew nañ quoi baa bi ñoom ñu ñëwul tamit seen xolo nga fa quoi mais loolu bi ñu ci bëgg mooy dañ gis situation bi difficile difficile su ñun difficile suñuy rakk làmb ji toog nañu neuf dix mois yoo xam ne exercer wul suñu métier te loolu neexul wante ku nekk mi ngi def sa métier avant deuxième vague bi di ñëw ku nekk ñamal na la nga ibbi sax def dara tuuti xam nga mais làmb ji nag dëgg neexul quoi dafa dëgg moom bu gisee da nga xam di dëgg la quoi waaw mbër yi nañoo toog jàpp seen ñaam am ak yëpp waxuñu dara te ba affaire Covid bi amee dañoo dajale suñu fonds yëpp dem yóbbu ko Matar ba ànd ak moom yóbbu ko ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr donc nag dafa jot ñu ibbi ñu ñu bëre mais ibbi bi tamit xam nañ ni feewut mi ngi fi te nangu nañ ko mais da ngay ñu ay conditions yoo xam ne dañ koy respecté gars yi respecté mesures barrières yi ñu mën a bëre distanciation distanciation yi gars yi respecté ko yaa ngi dégg gel yi antiseptique yi di ko utiliser takk max yi yi nga ne boo comme naan gars yi bëre promoteur yi tamit nga jàppale leen parce que booy proposer ay huit kuréel di proposer ay yeneen affaire te promoteur bi génn xaalisam joxe yaa ngi dégg ñoom Pape ñoom dañoo joxe seen xaay ñu fu ñu jëm mais ñooñu boo leen bëggee proposer ay huit kilos yooyu mais da nga teg seen loxo accompagner leen ne la fay nga mbër bi quatre cent millions léegi man am ndax naa lu tax yow mottali sa avance su mbër ko defee nga tëgg huit kilos léegi li ci am dañ fay droit tere yi gars yi jàppale parce que état bi day génn droit tere yi ci compétition internationale football yooyu CAN yeeg yooyu jënd droit tere yi Sénégal yëpp toog béggee si mais pourquoi pas làmb Sénégal làmb lañ gën a bëgg yooyu de boo gee foo tëgee la état boo tëgg fi am na journée yooyu tëgg foo ko tëgg day fees kon gars yi bëgg nañ ko waaw. léegi làmb est-ce que tolluwul benn niveau boo xam ne nii acteur làmb war nañ xool beneen modèle de économique pour mën a doxal làmb maanaam dem ci ci PPV bi exemple. waaw loolu dëgg la moom parce que lamb bu ñu waxtaanee dëgg lamb Sénégal fi mu nii billetterie yi yor ko nekkul moo yor lamb ji billetterie mooy bii yi ngay yaakaar pour non loolu yorul lamb ji lamb ji war a mooy fi mu toll nii mooy la base mooy il faut état dugal loxo ci lamb loolu moom dëgg neexul quoi il faut état dugal loxoom ci lamb parce que ce jeune bu nekkee même boo dëkkee boo nekkee borom kër gi sax nga dëkk ay jeunes yoo xam ne chaque jour yaa ngi gis ci biir kër gi booy di ngun ngun di ngun wala nga ñëw ne lal ma xew laaj gars yi quoi mais dëgg dëgg la ñu président nañu nu lu xew quoi yéen waa làmb la mooy seen problème quoi te dëgg-dëgg nag fu mu dem dimbali ku ne loolu yëpp naay sa waaye mi leen làmb tamit dañ am doole ci dëkk bi te bokk nañ ci ñun ñi ñëpp ku jël sa carte dugg ci kii bi woote ci lañ bokk ay citoyen lañ donc il faut mu jàppale làmb accompagner leen subvention def subvention boo xam da koy defal promoteurs yi dooleel leen wala sax mu wala wala sax bu fekkee promoteurs yi sa personnel wala c'est privé comme ni ko gars yi di waxee nga ñëw ci CNG bi yaa ko fi teg koy jàppale leen jox leen benn fond bu dëgër ne leen tëgg leen ay combat yooyu bu amee yëpp du am ay dem ci gaal yeeg booy dem feneen na affaire yi métti na gis nga gaal yi booy yu bëri nii dañ lay woo di wugul gaal yaay waxtaan na ñoom indi sa gaal wax ak ñoom ba génn leen ci gisoo mbuur booy mbëri bëri dem nañ ci gaal gi que loolu amatul espoir moo tax ñuy dem ci gaal yi te ñun digaluñ ko kenn ñuy wax boo yëpp ñu toog xaal yàlla day ñëw affaire yi moom dara jeexul quoi dëgg la métti na fu ne mais ñu toog xaar mais daal état bu jàppale woon làmb gars yi di tëgg booy di gis seen bopp mais làmb ba mu nekkee tëgg déggoo affaire immigration parce que booy même bu ñu yor comme li ma wax léegi rek mais bu ñu yor dañuy ñëw dund làmb bégee kaf ree booy bu ñu paree bu ñu lekkee cere bi wax dañuy tëdd garaawul parce que bég nañu mbëri bégal nañ leen gars yi dem nañ esaan yëngal nga gis booy xam ne loolu nag boo leen ko xañee nag léegi après da ngay toog rek di xool après doo xam looy def lu nga gis luy dem da lay yóbbaale da ngay neex a këf quoi noonu la demee waaw mhm. Mhm. waaw suñu rôle mooy ñu communiquer ci ñu sensibiliser ci wax ak booy yi booy dañuy wax ak ñun loo xam ne kenn new fa ñu woo suñu booy waxtaan ak ba génne lañ ci kon noonu loolu mooy suñu rôle di wax ak booy waxtaan booy wala nee na àdduna jeexul lu jot yomb mun nga dem fële am fa tamit mun nga toog am fi am ñoo xam ne génn ñu réew te ñu ngi teral ku nekk comme naan dañuy toog ñu ñafe ko metti na nag ci ñu ñëpp parce que booy yi doon tegal forcé na bu leen dem booy boo ko ci wax daan loo may jox doo ma jox dara yoroo sama gàll comme waaye dañuy waxtaan ak moom rek ci coopération boo yëpp ñu xam ni affaire yi yàlla jeexul quoi lu jot rek dina yomb ñu xaar quoi yàlla baax na incha allah. sa combat ak euh, Tapha Tine production moo ko euh, tëgg Leewtoo Pape Thialis Faye jiite ko foo toll ci presse ba préparation. ñu ngi si ñu ngi ci préparation bu baax parce que làmb ji moom des na desul parce que xamaguñu kañ lay bëri jàppaguñu dat mais ci loolu damay remercier Pape Thialis baax waaw di ko ni borom baax la comme li ma wax fii jël na xaalisam joxe te xamul kañ lay tëgg te ba léegi sonaluñ ci dara quoi tey affaire bi moo koy def point de presse moo ma koy yombaloon ne moom ba benn problème dinaa wax sama équipe mu ñëw dinaa rabal waa RTS ñëw couvrir la quoi te loolu mënoon na ko ci bañ a fekk Tapha Tine aussi sama adversaire lu sama émi woo naa ko ci affaire bi mais xam naa tànkam dafa diis mais woo naa ko pour mu ñëw mais di la wax ni rek làmb ji ñu ngi koy waaj a suñu ay koy waaj ak waa Pikine ñu ngi koy waaj ak cappaacul national ak international bépp di waaj suñu combat di ñaan suñu borom defal ñu ndam incha allah. waaw du nekk poids sama combat la dëgër juum naa juumuma parce que làmb la quoi bëri naa def naa li ma war a def yëpp mais gis ngeen làmb ji yëpp dina nu mu demee tamit ngi suñu ginnaaw amul problème mais xale parfois yooyu day baax ci moom boo nekkee ci yoon bi rek xam nga affaire yi boo nekkee boo dox sax foo xamante ni wóorul karo yu tooy ak yooyu doo tarxisu doo mën a jàppal bu baax taxawaat. parfois foofu nga xaw kii nga xaw a tagaat bu baax xam ne non non jàpp fi nga jàpp baax na nga dëgëral bu baax loolu tamit baax na ci bu baax moo gis nañ ni affaire yi demee sant nañ ci yàlla bu baax waaye am nañ combat bu am boo xam ne ñu koy waaj waaw importance combat bi xam nañ ko ku ñu ku ñu xam xam ne waa waa ku xam xam ne ñu bëgg làmb lañ ñu fonk làmb lañ ñu jox cër làmb lañ mosuñu simeeku làmb nit ñi xeeb ñu loolu ni dañuy tëdd di nelaw dañ fonk bés bu baax a baax maa ngi ko waaj di ànd ak sama sama frère yi ku ci mel ni Zambala mi ngi nii toog grand Mbagnick champion yu mag yooyu ñoom ku ci nekk am nga combat waaw maa ngi ànd ñoom ñu ngi liggéey ñoom booy ñaa tasamba ah, di bëggee ñëpp di wax ne ñu ngi ci ànd di liggéey bu baax a baax di ñaan suñu boom defal ñu jàmm defal ñu ndam ñu tamit suñu parce que ay ndaw lañ mais ñu ñëpp dañoo ànd bokk ndey ak baay yéenante jàmm te gis nga tey ñoom ñëpp dañoo ñëw accompagnement te loolu dafa rafet su may frère lañu li ma leen yéene may yéene ñu ñëpp ay frère lañu ñu ngi jàppalante ñu nekk suñu entraînement dugg suñu ruq boo xoolee ci préparation ñu ngi entraîné di waaj buñ ci yeggee gaa yi xam ni waaj nañ incha allah. ñu bëri dañ ne contre Lac de Guiers test la woon pour nga dugg euh, carrément ci VIP mais malheureusement réussir woo ko lan nga tontu. waaw waaw gars loolu yàgg nañ ko man boo xoolee sama combat guy gi rek guy gi ba may bëre ak moom gars yi dañoo tiitale su làmb ne boo ñaaw bi mooy bagam yaa ngi dégg guy gi ba may bëre ak moom guy gi après daan naa ko man ak Sa Thiès ñu ne combat bi mooy combat de mais loolu ci la amul problème quoi ñun ñun xooluñu le fait que dañu dugg cour des grands parce que cour des grands wax la rek quoi parce que moom booy fayee cachet boo xamante ni cour des grands mën nañ ko bañ a fayeeku ngay du stade bi ba mu fees loolu amul cour des grands quoi comprendre nga làmb la ñu ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi bëre santel lu ci am solo mooy ñu ngi waaj ak suñuy mbokk xam nañ fi combat bi toll suñu combat la Tapha bi ñuy bëree champion la mbër la mën na bëre mën na xeex waaye ñun daal ñu ngi waaj te comme li ma la wax rek buñ ci yeggee nañ xam ne boo ñaa waaj na boo ñaa dellu si waat allah bu yàlla ñëpp dañ ko xamee muy mbëru dóor est-ce que Boy Niang pare na pour dóoranteeg Tapha Tine. lépp laay pare <laughs> lépp laay pare bu bëggee dañuy xeex bu bëggee ñu bëri amul problème incha allah. na xeex ak Tapha mais Tapha Tine mooy kan <laughs> Tapha Tine mbër rek ku mbëri waaw mais mooy loolu man naa ñoo xam ne daan nañ Tapha Tine naa ñu bëri Tapha Tine amul ragal <laughs> loolu cër incha allah bu neexee bu ko neexee dañuy bëri bu ko neexee dañuy xeex loolu amuñu ci problème incha allah loolu moom mooy xool rek. lu mu ci woote rek dañ ko ciy fekk si incha allah amul benn problème. Ama Baldé daan na Tapha Tine et loolu da lay motiver de plus wala. waaw loolu motivation la waaw motivation la motivation la parce que Ama suma frère la mu ngi dëkk Pikine champion la ñu bokk Pikine mais ku ne dafa am sa yoon nag quoi waaw. ba pare ñun fi ñu toll nii dañoo bokk ay adversaire foofu moom bëri naa ak ñoo xam ne bëri naa ak ñoom man naa ak noonu la parce que dañoo ko ñafe ba fii nii xam ba ku mu bëree dinaa bëree moom bëree naa guy gi bëree naa guy gi moom bëri naa amanee bëri naa amanee bëri naa il faut mu demee noonu parce que ñoo bokk ay adversaire comprendre mais loolu yëpp du ci dara combat am combat Ama Baldé Tapha Tine loolu beneen combat la mais Boy Niang Tapha Tine loolu beneen combat la waaw lamb ci bokkul waaw. damay def benn retour euh, Boy Niang dañ fi gisoon mu topp Balla Gaye bëgg bëre ak moom combat bi dem ba waaj taxaw ñu ne non Boy Niang moo moo moo delloo avance xaw ma nu mu fa demee ne est-ce que mën nga ci. waaw noonu la mën na ci ñëwaat mais pas pas trop quoi parce que làmb la boo xam ne mi ngi ci ginnaaw comme naa champion la mi ngi def lu mu war a def ñun a def comme naan nga làmb nag bu ne ba ko gars rek parce que dafa neex Sénégal yi rek moo tax ba pare xoolee kut kut Sénégal ñu bëre parce que dafa neex gars yi ñu bëgg combat boobu rek du jot yomb ñun ay xale lañu dara. moo tax combat boobu àggul waaw combat par rapport ak kase la dañ ñu fay kase bu ñu enragé ñu bañ bëri na duñ bëri loolu moom amu ci suuti mooy loolu ñun Balla ak keneen a ci yem bu ñu bëree Balla dañ jàpp ne dañuy bëre bu ñu bëree ak Balla dañ jàpp ne dañuy bëre parce que moom champion la waaye ñun tamit ay champion yu ndaw yoo xam ne def nañ suñ toute preuve ci làmb donc bu ñu bëree ak moom dañuy bëre bu ñu bëree ak moom bëree léegi nag sama combat ak Tapha moo taxaw moo am ci la nekk di ko waaj ak suñu ay mbokk ak suñu ay am di jàmm ak waa ak sama mbokk séeréer yi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax ñu waaj ko bu baax a baax incha allah di ñaan suñu moom defal ñu ndam bu ñu defee ndam nag après ñu dem xool leneen Balla lu gars yi bëgg nii suñu combat mën nañ bëre ba làmb jeex duñ bëre làmb moom kenn xamul waaw noonu la. Ah, buñ xoolee mbëru Pikine yëpp dañu ànd si 100 pour 100 Pikine mais temps yi dañu gis benn propos bu génn Lac de Guiers dikk wax ko ci Eumeu Sène mu xaw a déranger ñu bëri ba nga déggee ko propos yooyu lu mu la def. non dara dëgg-dëgg nag parce que man nag mbër laa mais am benn euh, certaine mentalité boo xam ne moom laay doxee waaw nit nag li nga xam ne moo ñuy boole wala moo ñuy tàggale góob mën nit a koy wax waaw yow yow kay dund ak man rek ma gis ko quoi mais pas nit ma wax ma nga wax ma tafaal yi wala ma dégg fële ñu ne tafaal yi rek après ma xëy di ko fasal ak yooyu noonu non du noonu àdduna du noonu. Eumeu Sène man ak moom suma frère suma grand la ñoo bokk ndey bokk baay bokk pikin mu nekk suñu grand ku ne xam gis nañ ko bëggee nu ñuy sonne ci moom moom tamit muy sonn ci ñun donc loolu lañ jàpp te loolu moo existé te mooy mës a leneen amul. waaw comme li ma ko wax léegi ci conférence de presse bi nag dégg nga ko nee naa ko Lac de Guiers waaw ma ko suñu faral la moom it duñ suñu ennemi mais am na droit wax Eumeu Sène lu ko neex parce que ñoom ñaar ñoo seen contrat mais wax bi yóbbu ko fu ma a tegal lu metti parce que làmb la tamit fu war a jàpp loolu xam ni làmb yaa ngi dégg mais bu jeexee ci làmb bi dafay jeex quoi ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay nga tey róon ñëw na def ko affaire bu naaj ñoom ñëpp ñu bokk ndey róon na mi ngi jéggalu ñu moom mu génn ko après jeex na teewul nag ñoom ñaar dañoo war a bëre dañoo war a xeex dafa war a metti war a waxante parce loolu mooy sport loolu mooy yóbbu sport loolu mooy marketing États-Unis gars yi loolu lay def seen free fire yi nii dañuy tegante lu métti mu sol bu ñu paree nag gars yi nga xam ne sport léegi nag wax ji nag communication bi na ko gars yi di indi ci sport léegi buñ ko yóbbu ci vie privée non non dañ koy indi ci sport la da ngeen génn ne Eumeu Sène waaye yow li ma la xamal yow li lii li nga def nañ ko teg foofu war na ko wax loolu Eumeu Sène tamit nag génn na ko yow lu ma la xamal lii après noonu la ñu wax làmb la mais Boy Niang moom pour nga wax yàlla ko dogal mu am ñoo xamante ni dañ nekk sama ginnaaw par rapport sama mentalité kese doy na mais doy la fa am ñu nekk sama ginnaaw di ma xelal di ma dooleel di ma jàppale ñooñu bu dara amee dañ may woo wax ma li may wax dañ may wax rek loolu la ñuy doxee encore ñu sama mag yi toog muy yi waaw mi ngi sonn ci man baati ma jàppale sama mag bu dee taxaw muy bàcc HLM moom li nga sol yëpp loo gis kos bu ma sol wax ma kos sax mais li ma sol mu jantal mu naaj rek moom la waaw moom da koy taag moom sama habillement rek lay xool moo indi lii yëpp moom ko indi tay ma ko kee gànna moom wax booñaa wax moom depuis ba nekk xale di ci làmb tey ngeen dee booñaa ñëw na loolu moom moo ko créé moo ko génne ñii samay gaani mbër dañu dégool moom ku xam booñaa xam dégool xam nga peer xës ñoom peer lin xam nga maa ngi bëgg yëpp sama papa Mansour Diop gis nga tey ñëw na ital la nekkoon dafa ñëw affaire yee ko indi mu ñëw jàpp ci maa ngi nuyu sama papa mbër yi nekk Pikine yëpp tamit di nuyu mbër yi teew tey vraiment kontaan naa ci moom mbër yi teew tey yëpp Eumeu Sène mooy suñu mag Papa Sow baa ma ñoon Siteu Sokh Tapha Mbeur waaw Goro Soga ak Franc ñoo ñëpp maa leen remercier ñi ñëwul tamit ñu ngi leen di remercier xam ne jàpp nañu ñoom ñëpp am nañu xelu ñëw ñu ngi nuyu ak ki sama frère la maa ngi koy nuyu bu baax di ñëpp di ziar ñëpp di kontaan bu baax di nuyu Leewtoo waaw di wax Leewtoo xam nga Leewtoo Leewtoo moo gannaaw gars yi du wax dañuy xool ak mais Leewtoo moo taxawal combat bi dàq saison bi parce que Tapha Tine la te du yomb te may dara te lu ma may ma jël te moom tamit moo may dara combat jànk la da xoola xam naa ne buñ ci demee ba ci kanam ko tëgg di ko remercier équipe bi fi ñëw nii sama gars yi waaw moom depuis combat Sadio liggéey naa ñoom ay jantal ngeen xam nga ñu ngi ñaan Leewtoo incha allah dem ba nekk télé boo xamante ni ñëpp dañ koy gis li ngeen ci bëggee yëpp suñu borom defal leen ci di remercier Pape Charles bon au fond du corps merci beaucoup gars yi. dernière partie entretien bi ñu grande affiche yi jot a taxaw.